kanamu tafaatin bi ndax yéen a ngi dégg tafaatin ni muy waxee ak kanamu tafaatin bi est-ce que yéen a ngi dégg kanamu tafaatin bi waaw leen tafaatin ni muy waxee dañ doon entraîné man gëm la peur à l'intérieur de tafaatin <laughs>

moom mu ngi entraîné maa ngi entraîné la suuf si dañ ci xam dara incha allah. waay yaay tamit dañuy baat tafatin bi tafatin baat baa ngi lox. mbokk yi dégg nañu kàddu yi. Balla Gaye. non man lii koo gëm. ndax dinañu gis Balla Gaye ba jëkkoon a bëri ak tafatin. déglu xoolal Balla Gaye moom mi ngi réer ndeysaanam. ndax Balla Gaye dina dugal loxoom fa mu dugaloon loxoom ba am ndam wala déet. dëgg leen sérénité wu Balla Gaye sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Bara di ñaan yàlla jàmm ci réew mi di félicité ñi nga xam ne jot nañoo bëri di nuyu amateur yëpp di nuyu képp nga xam ne teew na fi ay supporteru Balla Gaye doo tamit oh, nag bara joon nag bara joon war ngaa wax sa waaju quoi du nuyu ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoo ngi nekk ba ca Paris. ku mel ni Moussa Fall ak Vince. waa MCS ma leen nuyu bu baax a baax. di nuyu suma adversaire Tapatine. dina wax ne vraiment euh, li ñu fi mooy contrat. ci li ma nekk rek laa nekk. Tapatine laa amal combat. di ñaan yàlla yàlla ma ndam ci ko nit danoo bëgg xam say supporter nee nanu est-ce que dinañu gis Balla Gaye ba jëkkoon a bari ak Tapha Tine wala déet. Tapha dóor boppam danoo nam. mi ngi yëngu naan ñii ci dóor boppam. Tapha Tine lii yii fi ragal dëgg ngay bu neexee yàlla man sama supporters xam nañ ma man caaxaanewu ma bis bi ndax xam naa fu toll ci man kii bu waxee ne fi mu taxaw la taxaw ba léegi mooy dama koy duma daan ko parce que fi mu taxaw la taxaw parce que bii paas dama koy duma daan ko kon dama koy dama duma daan dara mënu dox sama diggante ak moom ma duuma ko daal. <laughs> xool tam xool tam ah, il a même la misère <laughs> non Balla Gaye sérieux quoi. oui. déggoo anglais da ngay wax olof. nga wax nga ngay wan a bis. maa ngi Shut up man maa ko kenn dégg ko wax boo ko déggul nopp. nii eh, lay mel de amul wax de. amul yow xool ma booy wax nga yow yow yow ba kañ. xool ma moo gën nga yow yow. maa ngi nii nga seral nga yërëm tollu moo ci yam nga wut ay ndimbal moo ci bokk yam affaire bi amul yërëm dalu. allo. dootuma kenn yow dootuma kenn même nga ki ma taxaw yow yow maa la yaa ko duma daan ko mais maa la duma yow maa la duma maa la yaa duma ñëw mais maa la duma boo ko soob stress ngay génne stress lay génne moos SRS lay génne moos tamatine de mënul contrôler boppam dafa ragal Balla Gaye à ce point là waaye yow xool tamatine Tabatin deh. Tabatin. Tabatin rek, tabatin rek, tabatin rek tapen Ye ye ye ye ye. deket tapen bung. Mau kon dafa am si miir yéen bu arbitre bi génnee ci diggante ak Balla Gaye sifflé daa nar a génn saako yi loolu Tapha Tine bett na ma quoi. non. loolu lan la. waaw. jaasi laa ko tegoon sax Moustapha. waaw Moustapha ma nga ca kii. loolu yoon da koy tere. wéyu Tapha Tine. balaa ngi noonu waxan. waxante na ak Sa Thiès wala boog ak ak ak ak Tapha Tine li waxante. Tapha Tine ne ah ah. lii mooy bay làkk beneen làng moo xamut tiit bay làkk anglais te yëngoo ko. watalaasin watalaasin salaasin salaasin xam nga yow bu arbitre ba muy sax sax mais làkk beneen làkk boo xamul waa bana joor yow bana joor mais nag ay sant yàlla di ñaanal sama mag Eumeu Sène moom mu dese yow daa gën a ragal la ndeke barke Serigne Touba déy déy tafatin waajam bu métti bi yuxum bu métti bi bàkkum bi waxum fi dara ay doon ngi fa teen ak léegi at la moom la Tapha Sérieux woo. Tapha Gueye nee na nee na bu paree bi moo maa ngi jégalu de première bi damaa yaakaaroon ne sax affaire dëj bi la woon mais tey dëj amul. Tapha Tine am misère wax ci kanamu Balla Gaye xamul lu muy wax. ci kàttanu yàlla ak yonent bi di leen sant yéen di sant Lamine. merci merci. c'est bon maa ngi sant ñëpp daal yal nañu yàlla may ndam si combat Eumeu Sène bi. jërëjëf jërëjëf père gars yi foog nga leen di dagg sinon fi la ñuy fanaan ah. te <laughs> gannaaw combat léegi. <laughs> non. stade baa ngi noonu. yow tamit le gars ko way li gros la. t'as pas vu comment il est grand. waaw. yow. Amine ma bàyyi la nga waxtaan ak moom. Ah, non li la la dégg non. Ah, jox ko jox ko waaw. ma waaw waaw kenn du Malick kenn du seen affiche. Amine maa ngi lay. non c'est fou quand même. non mais. non mais c'est fou c'est fou c'est fou. ay waay waay waay waay waay waay. <laughs> Watafa. si génn ci piscine beeg wàcc wàcc aéroport beeg ay attaqué supporter yeeg dafa kon yooyu da nga doon théâtre dafa jàkkaarloog Balla gay war wax ci micro bi di wax ci taatu micro bi ci beneen taatu micro bi kenn déggut li ngay wax <laughs> no te van a. ¡Ah! ¡Ah! daa tiita tiita tiita tiit bi tiit ba tiit bi yegg ci taan yi rek mu ne aa wala ko tiit ba tiit yi yegg ci taan bi rek mu ne aa aa non Tafatine non Tafatine nag Tafatine Tafatine bett nga ma non non man ak sama aara ba jël yu métti yëpp naan non mais Tafatine psychologiquement changé na quoi parce que nag xam nga temps bi li fi jaar yëpp Tafatine ah Balla Gaye bi mu gis gars yi di ko pamti pamte mais Tafatine même Balla Gaye bu ñu pamti pamte Tafatine gis nga sa punkalaay ak Balla Gaye est que xam nga ne boo ñëwee ci taay bi Balla da lay daal yow déjà mënoo wax ci kanamu Balla yow maanaam bu arbitre bu fa arbitre génnoon. balla moo dox ñëw ci sa kaw ñëw jege la dalaa rek nga naan ko you know what be you know what be <laughs> you know what be <laughs> you know ah eh, eh you know what be <laughs> you know what be la no no Normans, I said, you don't want to be. Ah! Bada <laughs> John, Bada John, Bada John, señ Bada. Bada John, Bada eh, John nag sama ji nii. Bada John tawatin nag, eh, tawatin nag day rusloo bawal bawal yi. Tawatin day bawal bawal non Tafatine mën na sóob non di di di di di non mais man lii ku ma ko waxoon du ma ko gëm quoi ku ma ko waxoon du ma ko gëm wër na yàlla mais Tafatine <laughs> You wanna be? You wanna be? You wanna wanna be? You wanna be? <laughs> Para na kayo, babal, dumaan ka naman. No <laughs> oh, balayo seryo yo oh, balayo nga yamate balayo nga xamani xamani balayo bool bool yi nga teg fitne <laughs> eh fawzeri nag eh, amee ragal sax demee bool bool yi xëy tëj seen magasin yi <laughs> tawatin no tawatin ndeka tàppa dëgg nga yow man góor moom du ma waay xoolal waaye sa sama waa yow avant ñu lay jox micro bi sax ne maa ngi xaar yow yaa ngi xaar yow looy xaar yow bi ba la waxee ba pare yow jeexal nga li ngay wax non sama gars yi ñu dem ñëwaat ah dañuy dem dikkaat ci combat wu seen Sène Tapha Tine euh, Eumeu Sène euh, Sa Thiès Sa Thiès mi ngi sottee quoi ah. non mais gars yi sérieux leen maa ngi dem dikkaat.